ku gëstuy yi xam ne boroomam rafetal dundam yi wallaahi sëriñ aate ku xam ne boroomam rafetal dundam yi man anta njaay mbàkke dem moo di Serigne Mame Anta Sali di baayami fi na nag lan ko xamee Cheikh Ahmadul Muxtaar te moo di turami waaye Serigne xaafi na nag lan ko xamee Maam Anta Njaay Mbàkke te moo di yaayami Serigne Mamar Anta Sale di baayami Cheikh Ahmadul Muxtaar te moo di turami حملة كاملة فبايا مثل كمالي أم جغمي ويا فاسم حملة كاملة خم خم بيت ميكو سولو فبايا مي أكبر أكسر مكي بوسو بنو نمي خم خم بيت ميكو سولو فبايا مي أكبر أكسر مكي بوسو بنو نمي خم خم mi ngi ko solo fa baayami ak Bamba ak Serigne Mbacké Bousso be ndaw ndami gannaar itam dem na fa ànd ak magami Serigne Touba mam masa def am sangami gannaar itam dem na fa ànd ak magami Serigne Touba mam masa def am sangami ci teel la jaay mbokku gadaam dib larami la jox adduna minum xayam diirub dundam gënul bamba aw sasami moo jukki baat ju ma jam na imami ba benn bés mu ko def imami bam ko qui est opposition di leen nuyu di leen sargal di rafetlu seen taxawaay dinaa dellu ci ñoom ñoom ñu responsable politique yi ci li tax ma ni rafetlu seen taxawaay wante sëriñ bi suñu tànk tey mm-hmm. tànku ñëw wax ci li nga xam ni moom le président de la république son excellence Macky Sall moom lañu ñu ñu indi ko Serigne Moustapha son excellence le président Macky Sall mi ngi lay nuyu nuyu bu wér yow. ak jabootu sëñ Afia yi nga xam ni yàlla ñoom ñoo war tey bës bëccëg bi guddi gi ñu koy màggal son excellence mi ngi leen di ndokkeel di leen ziar te di ñaan it lépp loo xam ni moom ngeen bëgg ci biir ndaje yàlla defal leen ci loo xam ni du raw seen njortul mi ngi xamal ni lii nga xam ni mooy liggéey bi ngeen taxaw di ko liggéey ne leen wér ni yéen ak moom yéen a bokk pas-pas bi yéen a ci bokk bëgg-bëgg te mi ngi taxaw tem ngir gunge leen ba liggéey ci séntu yëpp yàlla defal leen nee na mi ngi leen di sàkku ñaan président de la république nee na mi ngi sàkku ci yéen ñaan mi ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko ci li nga xam ni moom leen ko dénk ñun waa Sénégal loolu woyof bopp ci boppam ba li nga xam ni moom moo ci seen bëgg-bëgg yàlla defal ko ci lu sut njortam mi ngi leen di ñaan ngeen dolli ñaan ngir yàlla dolli ñu jàmm ci réew mi ndax nee na réew mi am na jàmm wér na ni réew mi am na jàmm nee na loolu nattable wu ko wante gëm na ni it bu ngeen ñaanee yàlla doolu jàmm incha allahu yàlla dafay nangu boobu ñaan te bu ñu amee jàmm lépp lu ñu nësa lépp loo xam ni moom bëgg-bëggam la ci réew yi dafay yomb ci moom pour mu mën ko mëtale mi ngi sàkku ñaan it ngeen dolli ñaan ngir naa bi nga xam ni ci lañu nekk te mu mel ni day tàggoo yàlla defal ñu ci lu raw suñu njot ci mu doon nawet bu naat mi ngi fàttali ne amoon na ay fan ci ginnaaw xel yi xawoon jaaxle lool jiixi jaaxa amoon ndax ndox mi gëjoon wàcc wante nee na ginnaaw bi ngeen wootee yéen sëriñ si ngeen xiir taalibe yi ci dugg ci jàkk yëpp jumaa yi ñaan ba ngeen ko defee balaa ngeen di noppi ci la yàlla wàcc ndoxam ñetti semaine yoo xam ni yu tegaloo ndox di wàcc ci biir réew mi ba nit ñi fàtte la nga xam ni moo leen jaaxaloon ci fan yu wees yoo loolu nag moo tax mu jàpp ni saa yu di tàllalee loxoom ñaan leen ngeen ñaanal ko yàlla dafay nangu ñaan boobu yàlla leen yàlla bàyyi fi lu yàgg yàgg yàgg ngeen di yàgg di ñaanal réew mi yàlla di ci di fi def jàmm di dolli jàmm di barkeel it li nga xam ne moom lañ fi def Serigne Moustapha dañuy rafetlu sa teewaay ndax. naam ñun gan lañu wante yàlla def na bi ñu nee cëpp ci dëkk bi ñi nga xam ne ñoom la jëkk dégg ci seen tur nit ñi jox leen cër naw leen ci seen xam-xam naw leen ci seen taxawaay naw leen ci seen jikko ñooñu bokk na ci sëñ Moustapha Lakaram Mbacké dama jël service le 25 juin yàlla def keroog jooju ñuy installé sous-préfet bu Ndoulo ma jóge fii dem ci boobu passation de service keroog laa teg bët ci sëñ Moustapha te fekk na ba ma ñëwee le 24 ci ñi may wax jotoon nañu tudd turam wax ma ci moom loo xam ni keroog ci jotaay ba wax na fa wax joo xam ni firndeel na li nit ñi doon seede ci moom. kon sëñ bi yal yàlla guddal sa fan yal na yàlla dëggal sa taxawaay yal na yàlla bàyyi la taalibe yi yal na yàlla bàyyi la jaboot bi ñu yàgg di la jàppale di la gunge ñu ngi lay ñaan ñu ngi teg ci sa loxo nuyoo ak sant ak ngërëm ak ziar nga jottale nañu ko it ki nga xam ni moom la mooy la xalif général des mourides muy sëñ Mountakha Mbacké di rafet lu it taxawaayam ak ni nga xam ni noonu la ñu recevoir ci fan yi nga xam ne ñoo nañ fi représenté administration doon waxtaan ak moom sëñ bi dama waxoon ni dinaa dellu si ci mbirum responsable politique te dama rafetlu seen taxawaay ndax umple wu leen ni ñu ngi jëm ci ay élection fii ak i dinañu woo ñu dem def lu ñuy wax campagne de parrainage te coow li bare lool wante coow li lu mu bare bare bare li ñuy gis te yëg ko mooy ku ci nekk yaa ngi ci béy sa waar boolekaat nawloo sa morom nangul ko li nga xam ni moom mooy gis-gisam te du tere yow it la nga xam ni yaa ngi koy bëgg def nga def ko ci anam yi nga xam ni moom moo ci sa noonu la ci sa xel tey loolu mooy tax sëriñ bi ma delluwaat di sàkku ci yow ñaan ngir ngeen ñaanal ñu yàlla def jàmm ci élection yi ñu dëgmal ndax daanaka élection ci Sénégal li taarix wone mooy buñ ca àggee ku nekk bés ba di nga dem solu dem woote ki nga xam ni moom la la sa xel may nga dellu sa kër toog xaar résultat bu génnee lu yàlla def nga ànd ci wante dafa fekk ni li ñuy seetlu mooy balaa élection di ñëw ci la coow li di gën a gën a bari loolu nag moo tax ñu bëgg fii ñu tollu tem ndegam dañoo nekk ci li ñuy wax phase pré-électorale dañu bëgg ngeen dolli ñaan ngir li nga xam ne ci sant ci taalibe yi laa bëgg yemale su may kàddu di la ñaanal di ñaanal képp koo xam ne da nga soqeekoo ci sëñ Afia Mbacké di ñaanal képp koo xam ni yàlla def na nga rossi ci paas bi tey di ñaanal waa dëkk bi di ñaanal waa réew mi yàlla defal ñu jàmm ak salaam yàlla defal ñu mucc ak muccale yàlla defal ñu lépp lu nga xam ne moom mooy suñu bëgg-bëgg ci réew mi jëm kanam ci réew mi nekk réew moo xam ne moo raw ci réew mi yàlla ñu ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin al-haadi al-amiin ibn abdillah sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa xulafaa'i raashidin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fas yéene joxe ay kàddu yu bàyyi ko ci suñu wayjur di suñu kilifa Serigne Moustapha Mbacke mu Cheikh Abdoul Akram Mbacke ci jotaay bii ñu toog di bisu màggal maam Cheikh Afia Mbacke Serigne Moustapha toog fi di ko Samba Awa Ndiaye waxee sànq toog fi toogal fi way juram di xaritam di sëriñ Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Mame Cheikh Rafet Mbacké muy wax ci kàddu bu jox ma ndigal ne naa jot li kàddu yooyu kàddu yooyu nag la ca jiitu mooy dëkk xamle li waral woote bi li waral woote bi moo di ne bisu maam Cheikh Anta Mbacke bu ñuy woote fii ci jaareem bii ci këram bii Serigne Saliou fonk ko lool wax ne amul benn bis bu dul bis bii moo tax li ñu tolloon ci waajtaayu bis bi mu yabal ak njabootam Cheikh Abdou Mbacke mii sëriñ Saliou sëriñ Afia ak ay rakkam yi àndal yëpp sëriñ Moustapha sëriñ Abdoul Ahad ne leen jënd leen ngeen fekk fa sama doom waaye sama xarit sëñ Moustapha Moussa Abdoul Akram ngeen waxtaan moom ci bés bi yoon wu mu leen jaarale ngeen jaarte ñu ñëwee si moom itam mu nangul leen loolu xamal leen ne que sëñ Afia kii ñu nekk moom mooy kilifa bi lépp lu mu sàkku ci man ak lu mu mën doon naa ko yéen kon insha allahu bu ngeen ko bëggee rek fekk ñu daal def foofu avant première bi ci kanam Samba Awa Ndiaye woote ko woo mbooleem ñi nga xam ne ay wëlëreem lañu ay am di jàmmoom lañu tàmbalee ko ci président de la république ñëw ci nga xam ne kenn la moom di Moustapha Niass dina xam ko moom ñëw ba ci soxna Aminata Tall ak ñi nga xam ne ñëpp Serigne Moustapha ku leen xam xam ne am nañ ab diggante bu dëgër mu woo ñëpp ci turam kon nee na tey bu dikkee dinaa woowoon na ñooñu woo mbokk yi woo taalibe yi woo am di jàmm yi yàlla dogal ñëpp ñëw mu wax na xolam sedd na guy ci woote bi nga xam ne waaye juróom bi woote loo na ko mu woote ko nit ñi wuy su ko kooku wax dëgg yàlla amul seen fay ñu ngi sant ñëpp gërëm mag ak ndaw kum tudd ak kum tuddul te ñëpp xam ne koo xam ne ñëw nga fi moo xam ñëw nga ci moom dëkk wala ñëw nga tey delluwaat muy mbokk yi ñu jóge Touba ñëw fi te tudd leen sànq Samba Amady Diaye tudd leen ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñëwoon fii suba moom jotaay bi ñëpp tey Moustapha nee na ñu ngi yëpp ñu barke si ne li nga xam ne moo tax muy woote. ci turu Serigne Cheikh dafa doon loo xam ne day bis boo xam ne bu rëy rëy rëy la muy bisu bi Cheikh Ahmadou Bamba joxee maam Cheikh Anta Mbacké ndigal ndigal lu ko joxoon rek rëy la waaye ndigal lii teel ni rëy na lool lool lool li tax naa ko morsalaatee mooy Samba Ndiaye wax na ko sànq Seexul Xadim soxee la ak soppam te mu nekkoon ci loxoy noonu ya ñu bëggoon koo tas ba du mën a joxe wax wa ca te ko war a joxe Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nafaxallahu bi barakaatu ni mu ko nettalee dafa wax ne Serigne Touba de wax na ne fi muy jël der ba di ko sànni ci géej gi jëm bu ci woon dara waaye dafa xam na rek ba kanam buru ko gënal ndigal suñu borom taxawee borom moo tax mu jël der ba sànni ko ci géej ga borom géej ga dalloo ndox ma ndox ma dal gën a dëgër suuf mu taxaw ca defe ko noo xam ne bu taxaw na ci joor noonu lay jullee mu julli ci xere yi suñ borom mu delluwaat ci biir gaal ga mu àndal ci baax loolu ku ne xam ne kon léegi ni ci moom ba ca des keroog ca bureau moom itam muy bis boo xam ne tubaab yi wër nañ ko di ko xëbal di ko xeexal terewul moom nekk na julli rek ne ci xel mi julli rek ne ci cër yëpp mu taxaw foofu julli seen kam kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy euh, Seexul Xadiim su julli toll ci moom mooy suñu borom bëgg jaamam li ñuy wax ay jaamam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fañ fañ moom suñ borom fa mu bëgg julli toll fa ci noonu la toll woon ci ñoom ci moom Cheikhul Khadim kon nag koo xam ne wóolu na li ci loolu daal dëgg yàlla bu dee rëy dana ëpp rëy rek dana rëy ba ëpp suñ teg bala koo jox nit nag dana xam ne suñ tubaab bi jaay kenn du jox nit itam cër buñ nanguwul kon bu xoolee lu toll noonu si moom lu toll noonu suñ borom jox ko ko fekk na ya war a jiitu yëpp ci tànn am na ko góor ko ci mat na ko mu door ko tëj loxo mu mel ne moom Cheikhul Khadim ci boppam bis bi mu santaane wala moo santaane bis bi muy tàmbalee liggéeyal borom ci géej gi nga xam ne liggéey ko mu wax ne nañ ko ci santale borom ndax ba moom ci la ko amee moo tax nag eh, Serigne Saliou ak magam yi fi wuutu bis bi rëy ci ñoom muy bés bi Sëriñ Tuubaa jox maam Cheikh Anta Mbacke ndigal nga xam ne moom it lu mu am ci la ko amee ñu ne nañ ko woote bis boobu woote ko nag te teg ko ci anam jëm bëgg moom maam moo ñu sel lépp moo ñu dalal lépp moo ñu teg lépp ci yoon bi nga xam ne kuy woote bis diine dañ ko war a loolu firndeel nañ ko ndax sànq li ñuy dim délégation yi fi ñëw dañ fi tudd ci ay daara kenn xamatul ndox nu mu toll te daara yëpp ku ci nekk la nga man fi alquran yaa ngi boppam muy ñu kaamil bu jeex te ku rek xam na alquran ak darajaam kon ñu ci wàcce ay kaamil ko santale yàlla sëriñ santale maam Cheikh Ayou Ancien Mbacke Serigne Touba ci liggéey bi ñu ko joxoon xasida yi garnde yi lépp ñu def ko santale ko maam Cheikh Ayou Mbacke Cheikh Khadim ci liggéey bi ñu ko joxoon ba doon pilo fàlle mu wax ne jottali ak jàpp ak cant ak ngërëm loo xam ni li ma waxoon sànq ci waajur bi ci Sëriñ Saliou Mbacke suñu affaire wax ne waajur la waaye xaritam la waaye kii may bëgg a wax nag muy kilifa yoonu murit Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke yàlla na ko yàlla dëgëral te yokk koo aar moom itam ku ne xam na seen diggante ñoom ñaar dañ mënta xaar wala leen la bu yàgg lu lu ëpp ñeent fukki at mu jógee ci ndigalu Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad ñu ànd muy kilifaam di magam waaye ànd la ñaar ñeent fukki at topp ba ni yàlla dogale nag. mu war a nekk sëriñam mu jox kàtt loola muy mbokk di xarit ci sëriñ ni ko Samba ma waxee sànq xëy si naa affaire tey suba xam naa ak moom yéene du am ci biir kër maam Cheikh Afia Mbacke ak jàpp bu mu ko bu ko jàpp te yàlla tax ak diggante Serigne Touba Ba loolu waxtaan na fekk Serigne Moustapha lu bari moom it jot na ko kilifaam Serigne Saliou sànq dañuy euh, génn dañ koy sant bu di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla Serigne Mountakha suñu borom bàyyi ko fi guddal fanam lool di lool ñu wëlbati njaboot yëpp ñu topp ci ginnaaw di ko déglu lu mu digle ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko xam ne ay ndigalam mooy ndigal suñu borom ay tereem mooy tere suñu borom ñëpp ak kaw xam mu wax ne itam ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne moom lañ fekk ci dëkk bi ñuy waa dëkk bi di bokk ci wàllu nguur bi yëpp ni ko Samba Awa Ndiaye doon dimee sànq waaye ka tey jiitu itam mooy suñu préfet préfet ñëw ak ni mu war ak délégation bi mu war a àndal ñëpp kenn ku ne yëpp yu rafet di ànd ak yéene bu rafet ñu wax biir waxtaanam wax na bi muy ñëw te di ñu ko joxoñ ay kilifa ci dëkk bi kenn jiituwu ci sëriñ Ousmane Abdoulaye Kane loola nag mel ne moom li muy faral di wax naan jikko mel ne la loolu jikko rek moo koy kon fexe loolu wax moom ñun tam ñun ñi nga xam ne ñooy ak njabootam dañ lay gën a gën a gën a xamal na ñi la xamal ci moom liñ la xamal ci moom ba tax nga jàpp ko ñu seetlu loolu ñu ne tam lu ëpp nit ñi dañu la ko wax na bi na ci li ñu jublu ak fi ñu toll ci waajtaayu jomante bi ñu jëm ak bu ñu àggee ci jomante wa loolu sëriñ bi dana ci ñaan waaye itam wax nga ne taale bi dañuy déglu ndigal bi ñu déglu ndigal loolu nag ci la ci lu muy tàmbalee li muy tàmbalee weesuul mboolem président bu mas réew bu ñëwee dana fekk mbooloo mi ànd ak sëriñ parce que Sénégal boo ko dee xool ñu jéem ay jullit lañ jullit yi tarixa yi itam nag ci nekk dañ def fii ak yow dañ lay déglu su ko defee ñun suñu toog te seen see waxee ci kàddoom moom ci la ñuy joxe ñaan gi gi mooy lan te te sëriñ bi war ko ñaan ndax damaa wax ne président bu fi ñëw dana fekk taalib bi uuf ci kanam sëriñ bu ëllëgee ñu fekkaat ne ñu uuf waat ci kanam sëriñ kon ñoom sëriñ bi rek la ñu am sëriñ bi ñoom rek la am kon bu président day bëgg jàmm yaakaar naa ne sëriñ bi la koy bëggal kon sëriñ bi moom itam ak ñaanam la cay jiital mooy mu joxoñ taalibe yi li may wax ak képp ku ko dégg te man mooy préfet juñu na dem sànni si kat dem toog si kër na fii ñu toll ku am xel war na am loo xalaat bu baax war nga bàyyi xel ci sa bopp bu baax war nga bàyyi xel ci bu baax war nga bàyyi sa xel ci bu ba war nga bàyyi xel ci sa sëriñ bu baax xam ne am na luy bëgg ñëw waaye liy bëgg ñëw bii mën na koo def ba mu jeex tàkk te du ko yàqal diggante ak kenn li ñu koy mooy fu tànn jotee kenn ku nekk kane ci xelam te bëgg ànd ak moom man naa kenn kenn bañ a xam sax kii ku moom rek moo koy wér da ca am solo. pour war nit ki ne ko jàppale naa la moo jox ko carton lay war ñetti des ne leen ne leen dama leen contre mooy mooy mooy mooy xañ leen carton loolu day doy na sëkk doy na sëkk ci wane ne yow laa faral jox la sama carte na sëkk ci ne dama laa contre mooy la sama carte ci gëtt boobu nag ku ci dul ndaw ku ndaw war nga ko mën a def ba noppi dem sa naa ne sa ataaya tëdd yor sa rajo déglu nga xam nga xam ne noonu la dem gàmm daal su defee nee nañ ko ñaan na ko na ko kilifa gi ñaan waaye nag faaw mu boole ci ndigal yii nit ñi daal nañu gën a seen seen seen bopp xam seen jëmmi bopp ji ba ko ci àll bi xam ne far ba far jeex daal jox naa la sama kàtt mënoo ko def. kooku nag su ko jeex itam mooy naa ko def. diggante boobu rek man xaw ma lu ci def xaalantee kër yaa ko bokk dem sax ba ci wax sa kilifa loo ko def ci luy dal kat ci jot ko kon eh, ci bàyyee xel bu baax sëriñ bi nag ginnaaw wax bu nekk dafa war a digal njaboot bi du leen jëriñ di leen moytu loolu leen du loo di itam buñ ci buñ ko buñ ci bu fekkee dañ cee am ci lu ñuy foog ci ci ay yëngu-yëngu sëriñ bi dana ci jël ay matuwaayam mooy digal leen ñu dal war leen tam yoon bi nga xam ne te ñu war a jaar ku ci nekk la ngay def nga def ko te ñu ci kër jàmm salaam boobu ñëpp loolu suñ ko defee dana jàll jàmm te te xam jàmm loolu rek moom solo daal mooy li nga xam ne sëriñ bi dana la ko dolli ñu ñaan ko ngay sàkku ngir ñu ñaan ko ngir jàmm mën am ci réew mi danañ ci ñaan nag waaye dañuy wax ne jàmm dañ koy ñaan waaye dañ koy sabablu sabablu nag mooy loolu boo sababloo nag ñaan yàlla nag mu ànd ak sabablu la li nga bëgg ñu doon ginnaaw loolu sëriñ bi ñu jot li la ay kàddu yoo xam ne su waajur sëriñ Moustapha Mbacke mu sëriñ Afir moo ko fi yónnee ne kàddu yi ko ñor la kàddu yi nag weesuwul rek yow li la tax a toog fii muy dund la bokk gi rek mooy bett lu war bokk gi rek mooy rafetlu la bokk muy xam moom day jëm. kenn gis ni jëmmam waaye xelam ak xolam waxtu wu nekk muy bés bi ak li jiitu bés bi ak li ci ginnaaw bés bi yëpp mi ngi ci wetu Sëriñ Saliou Mbacke magam waaye mi ngi ci wetu njaboot yëpp di leen ñaan ñoom njaboot yi itam ñu gën a boole seen bopp gën a déggoo gën a ànd nekk gan kenn ku nekk xool sa bopp xool sa bopp ci sa borom kàddu yooyu la wax ne ñu jottali ko ko borom moom itam ginnaaw loolu itam xam naa fàttaliwaat rek ak soññawaat ci waa daayira sëriñ Mahamad wax na ko sànq waaye ginnaaw kàddu sëriñ bi la duñ duñ leen mën ñàkk sant ñoom itam seen taxawaay jaarale ko bu président bi muy seen Cheikhouna li nga xam ne moo jiite daayira bi di ci dox di wax lépp lu mu yaakaar ne dana ko rafetal mu nekk def kooku sëriñ baa ngi sant borom yëpp góor ak jigéen kenn ku ci nekk lam ci def gis na ko xam na ko maa ngi la ciy sant ba cant tàmbalee ba fam yam te di ci ñaanal itam nag waaye di la ñaax itam nag ndax ngeen xam ne lu ngeen fi def kat seen maam ngeen ko defal waaye lu ngeen fi def nag seen bopp ngeen ko def kon nee na lépp lu ngeen ci defoon ngeen xeeb ko te takkuwaat parce lu ngeen ci def ren rek bu déwénee du mat sax du ko mat asakal loolu Touba Daayira bi la jëm Serigne Cheikh Abdou itam ñu ngi sant monsieur le ministre Amadou Ba Babacar Gueye teewal ko ñu ngi koy sant bu baax di seddliwaat bu baax seen coloré yi nga xam ne moo tax bu mënoon a ñëw ci jëmmam day ñëw ñu mënta jëm itam mu yebal ki nga xam ne moo sës ci moom ñëw teg turam kon daal sëriñ bi fekkee mën nañoo wàcc ci kàddu yi amoon nañ yéene daal ni ko bëgg ñu waxale ko noonu waaye jombut xëy niñ koy yéene ak niñ koy bëggee mën naa ko yéene noonu waaye lépp lu rafet daal la sëñ Moustapha wax bëggoon ma wax leen ko lépp luy boolewaat wa njaboot moom la sëñ Moustapha bëggoon ma wax leen ko wax leen itam ne mi ngi ci wetu booy juróom bii di kilifaam bii di xaritam bii sëñ Saliou sëñ Amdi Mbacke waaye mi ngi ci wetu magam bii di sëriñam bii di sëñ di tàllaat ñëpp loxo di wax préfet ne ko fas na yéene dàll yooyu soroon di ci dox bi nga ñëwee bi ñuy tudd ñi ngay joxoñ kenn jiituwoo ko te loolu dara may ko dul cibb ak fas na yéene loolu mooy li nga xam ne mooy ngëm-ngëmam di def sañ nekk baax rek incha allah kon nag ñu sax gërëm ñëpp bu dee wàllu presse bi itam ñoom ñoom loon def avant projet ba fi ñu toog boo dem presse lépp ngi ñu toog taxaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan suñu borom ci lu wér lool ci darje Seexu Xadim nga lim yéene liggéeyal Seexu Xadim ci jaamu yàlla yi suñu borom maye ko lu kawe jotam te maye ko noonu itam nag suñu kilifa gox bi Sëriñ Sall waaye maye ko noonu itam nag suñu wàllu bopp di suñu Moustapha Moustapha Naka suñu mbokk yi nga xam ne itam ñoom ñoom ñoo bokk benn maam ñu nekk bokk sant Mbàkke bu ma waxee mbokk yi rek dugg nañ ci biir loolu kon daal ñoo xam ne bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp asalaamaaleykum xam ne mooy ay kàddu waa Descos rek lay doon nee na di rafetlu bu baax kàddu yi nga xam ne jib na fi yëpp te lépp bëgg lu baax rekk a tax nee ñu bàyyeen kàddu bi nee na te ñoom ñépp a ko bokk nee na bu fekkee ne Serigne Modou bàyyi leen ci passé rek nee na passé boobu rek ci lañuy bëgg a wax waane moom Serigne Modou li mu war a wax lépp wax na ko. Serigne Moustapha la Karam nee na kon looloo taxoon ñu jox Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Wadoud kàddu gi. Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Wadoud Serigne Moustapha la Karam Mbacke sa wayjur nee na mi ngi lay sant bu baax. moo képp koo xam ne am xelam rafet na ci njaboot gi. sëriñ bi nee na ndax doom nga naam. wane ne ne doom day dina sagoo way juram wane ne ni doom di sagoo way jurit noonu la way jur di sagoo doom nee na kon nag bépp doom boo xam ne way juróom sagoo na ko war naa sant yàlla bu baax sëriñ Moustapha la Karam Mbàkke ne yow sëriñ Modou li taxoon ñu jox la kàddu yàqu ko ne na xanaa njabootu sëriñ Saalihu rek nee na ñu santaat leen bu baax nee na lim ni ñu demee ba ci ñi ci gën a mage kenn ku nekk fa nga soqee koo Serigne Moustapha Lakaram nee na ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax Serigne Moustapha Lakaram nee na xanaa ñu gën a góor bu baax rek ndax nee na way jur bitig la nee jëndal bu baax ndax nee na te ñun ñii li nu am nee na dañ koo jënd ba mu jar waaye nee na aw sant wala kee ma jur ndax nee na lu jar ba nga am ko nee na way jur wa dafay am marchandise mu nekk ci moom am mu nekk ci yow doom ji kon Serigne Moustapha Lakaram nee na nii ngeen defe doxale ko jël seen mbokk yi nga xam ne tey dañ leen di jàppale seen mbokk yi nga xam ne dañ leen di jàppale ngeen jiital leen ngeen jiital leen ci sëriñ Moustapha la karam nee ne seen xel dal na ci wàlle seen xol seet na ci bu baax ak sëriñ Gédé nee na muy dox rek nee na booba yéen lañ ko doon soxal nee na te sëñ Gédé bariwut ak njaboot nee yaakaar na ne benn doom la ko xamal nee na sëriñ Saalihu mi bëgg seen waajur rek a taxoon nee na kon bu ngeen ci taxawee ba mu demee nii koo xatal. bañ koo xatal. loolu kon yàlla na ñu ne leen waaw leen. Serigne Moustapha la Karam nee na yàlla na ñu ne leen waaw leen góor. ndax nee na njabootu Serigne Touba yëpp teew na kenn desul. Eh, na ne sax far njaboot ak Serigne Mor Anta Sali yëpp teew nañ fi. nee na njaboot mën nañ ne njaboot ak maam Balla Xaysa yëpp teew nañ fi. mboolem nee na njaboot ak maam xaram man na ne ñoom ñëpp teew nañ ko nee muy kokki ak musóobe ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñi nga am lislaam bi yëpp ci réew mi. tarixa yi mboolem ab ruuxa suufi bi ku ngeen fi déggul turam it nee ngeen fi déggul turam xolam ñëw na xolam ñëw na ndax euh, euh, liñ koy def li ñuy def fii moom lañ ko defal ndax nee li ñuy def fii moom lañ koy defal ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk Serigne Afia Mbacke Ahmadul Muxtaar ak Serigne Mor Anta Serigne. xaw ma kenn ku fi teewul tey. Serigne Moustapha Lakaram nee na xamul kenn ku fi teewul tey. wala sa sëtam teew. wala ab sëtam teewul. teew fi teew fi. ñoo ngi leen ci sant ci jotal googu. sëñ Moustapha Lakaram nee na kon nag ñu ngi leen di sant ci jotal googu. sëñ Saliou rek li mu bëggoon nee na lii rek la. nee na sëriñ Saliou mi nga xam ne mooy xalifaam sëriñ Afia yàlla fi yàgg na taal ak wér nee na li mu bëggoon lii rek la. nee na bokk gi daje. ànd ànd. déggoo juboo nee na yaakaar ne na moom la rakkam ji wax léegi Serigne Moustapha la karam nee na kon nag léegi dafa waxoon it ne fee mu toogoon ak moom ne Serigne Abdoul Baaxe ñëw na fi jëf na fi jëf joo xam ne jëf ju rëy la moo fi jiitu itam sant na ko sant na Serigne Abdoul Baaxe sant nañ mboolem sant na mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëriñ Afia ndax sëriñ Abdoul Baaxe moom sëriñ Xaasim moom sëriñ Afia mooy seen kilifa ñoom ñëpp kon na sëriñ Saalihu Mbàkke sant na sëriñ Abdoul Baaxe moom sëriñ Xaasim nee na loolu sëriñ Modou di taawam bi daf ko bàyyee woon li nga xam ne mooy def moomu rek te moom it moo ko waxaan moom sëñ Modou moo ko waxaan sëñ Moustapha Lakar nga ko am na ñàll wu ma la bàyyi ngir nga maase leen ñu ko ci mbay mi mu daal di koy fàttil li nga moom mooy kàddu boobu tax sëñ Moustapha Lakar nee na kon ñu ngi koy sant bu baax nee na bu fekkee nag wàllu adduna wi la nee na sëriñ Modou Mbacke wax na ci li mu war a wax waaye mboole mboolem ku fi ñëw ci dëkk bi di doomi dëkk bi di def lu baax ci dëkk bi ñi koy def ay njaboot lañ comme ñoom liñ ci def yëg nañu ko nee na yàlla leen ci yàlla fay. moo xam nu fi waay jàpp ci dëkk bi. moo xam nu fi jàpp ci dëkk bi. wala réew mi. nit nag. nee na nit nag. ala kulli xaal. nee na ala kulli xaal. faaw nga sant. nee na nga sant. ndax danoo tënku ci am réew. ndax nee na danoo tënku ci am réew. réew mi dafa am président de la république. nee na mi dafa am président de la ko nee na bu ko neexoon préfet bii nee na lu autorisé tente bii tey nee na bu ko neexoon. nee na te ku xëccoog moom boo wuttuwut la nga cay jëlee du la gënal. la nga cay jëlee du la gënal. kon nag préfet Serigne Moustapha Lakaram nee na ñi ngi lay sant bu baax. ndax nit bu waxee rek da xam la ndax nee na nit waxee rek da nga xam ndax kii nit la wala lan la. nee na kon nag xam ne ni nit wax naa ak ñoom. nee na kon fa ndigal la jógee ba nu daamu la ba yónni la ba yegg si fii. sëñ Moustapha Lakaram nee na ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di sant ki nga xam ne mooy président de la république. sëñ Moustapha Lakaram nee na ñoom nag. cant gi nga xam ne ñu ngi fay sant. du loo ci enveloppe nee na du loo xam ne dafa jóge ci enveloppe boo xam ne kenn da koo joxe bu dugal ko ci poosam Serigne Moustapha nee na loolu jërelu ko sant nit te it dama ko gisul nee na te loolu it da koo gisul nee na bu ko gisoon it mu yegsi mu woo Cheikh Abdou mii nga xam ne mooy taawub Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Afia mu yegsi na ko joxal ma ko sëñ na joxal ma ko sëñ bi waaye waaye nag loolu doon ak jant. nee ku la jàppale ci li nga war a def. nee na la ci li nga war a def. nee na ba benn coono fekk la fi. yeeyoon ak jant. monsieur le préfet Serigne Moustapha Lakaram nee na na nga wax président de la république nga ko sant na ko. Serigne Moustapha Lakaram Mbàkke sant na la. bu wér a wér ndax nee na moom président ni mu doxee ak ay kilifaam nee na loolu lu leen neex la lu lu bëgg la. nee na te yi wax nañ ko léegi nee na Serigne Saliou mi ngi ci kër gi nee na Alaaji Samba Awa wax na lu ko neex léegi nee na gis na ak Serigne tey gis na ma ak Serigne tey nee na léegi la jóge ci Serigne Afia nee na Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacke yàlla fi yàgg te ànd ak wér 7 heures nangam ma nga kër Serigne Moustapha Dakar Mbacke ca Afia. nee na ba mu ne ko mën ngaa dellu nee na loolu punul ñooñu nee na koo wëlbati ci lenn mënoo koo dugal ci lenn nee na xanaa ñooñu rek sëñ Safara Karam nee na kon nag ñooñu ku leen jàpp jàpp nan la nee na kon ñi ngi koy ñaanal yàlla bu wér a wér na ñu delluwaat ci suñu bopp gi nga xam ne muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu ne Serigne Modou Mbacké wax na ci lépp waaye nag moom Serigne Mountakha dafa mat a ñaanal dafa mat a bàyyi xel dafa mat a wóolu dafa mat a wóolu dafa mat a déglu dafa mat a déglu nañ ko déglu nee na déglu Serigne Mountakha dafa liggéey de nee na Serigne Mountakha dafa liggéey de li mu wax ci suba nee na ma dama fas yéene nekk rek ku fi nekk rek ma nekk sa wet nee na li mu wax suba mooy moom dafa fas yéene woon nekk fi doon xalifaam sëñ Tuubaa ñi fi nekk ci seen wàll rek kenn ku ca nekk loo wax rek. dafa naroon na wa salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa day wax amiin. li sant bu baax Serigne Lamine Mbacke mi nga xam di taw Serigne Serigne Saliou moom Serigne Ab te Serigne Abdourahmane di jëwrinam di léppam ñu ngi koy sant bu baax nañuy wax amin